Manifestation, félicitations Gawsu euh, ci qualification bi parce que si lu waroon lu lu CESA yi la yalla dawal na mu jaarale ko sa loxo effectivement nga réussir ko ñëpp di la ci remercier ñu gis remerciement yépp yëpp na gis nañ ko mais dafa am benn affaire bu ma ci xawal kii rek mais Gawsu yow quel est ton secret dans tout ça parce que c'est pas la première fois hein, nga réussir loolu. dëgg la secret bi d'abord mooy discipline ak gëm li ngay def ba pare tamit sérieux ci ci sa ci sa défine parce que xam nga ñun ay xale lañu yor sooy waxante ñoom wax leen dëgg sooy liggéey ñoom liggéey ñoom ci loo gëm mais bu fekkee ni da nga bëgg di ànd ak ay xale ba pare li ngay def ah, nekk genre njuut njaaj wala tappale il faut mu répercuter ci yow léegi nag yow bu fekkee ni tamit da nga am gëm-gëm mm, li ngay wax na ko xale yi xam li ngay def it nañ ko xam mu nga boole ci yamale ñëpp amul parti pris bon ba pare nga instaurer euh, discipline te liggéey liggéey teg ko ci yoon bon yàlla foo jaar mu mu jàppale la. effectivement loolu moom dëgg la parce que gis naa ne loolu moom dañ lu ñu remarqué la ci yow d'abord mais gis nañ ne aussi nga yore ay xale xale yi tamit vraiment déggal la trop aussi euh, gis ne benn jour naa déglu su benn interview. Euh, ngay nga leen nga leen di gërëm par rapport ak li ñu la déglu parce que bi ñuy ñëw dafa am leneen lu leen indi lu dul ay affaire ay problème ay xaalis ak ay affaires yooyu vraiment témoignage boobu aussi ma rafetlu ko trop mais yow nan ngay dundee loolu durant toute une saison. waaw li ma koy dundee mooy ñoom dañ may yokk dañ may gën a ñaax ndax ñoom ay xale la ñu xam naa ne football lañ bëgg te tamit loo leen teg ñu tegoo ko ñoom nañ football rek. te bu ñuy football it dañ def kem kàttan li nga leen sant ci football bi ñu def ko ñooñu nag soo leen amee yow tamit nga gis leen ci seen ci seen taxawaay ak seen gëm-gëm yow il faut ñu ñaax la ci nga gën a góorlu gën a liggéey gën leen a jàppale gën leen a puus ñu dem ci kanam parce que ay xale lañu soo leen liggéey rek ñu avancé léegi nag li ci nekk mooy euh, euh, xam nga tamit euh, football moom xale koy def parce que boo amee mag mu koy def mag mi day am leneen lu ne ci ginnaaw loolu bu sooxee bu tardé rek mu téye boppam. te championnat bi soxlawul ngay dem di téye sa bop chaque jour boy dem ci championnat bi da nga wara def jéego dem ci kanam loolu nak xalé ko mën parce que xalé amna bëgg-bëgg waye mom football bi muy football moko ko gën a li muy jëlee ci football bi diko def ci posam parce que ñom ko ci gis aspiration moy dem football bitim rew donc ñom du football yi xaalisi Sénégal lañu soxla liñu soxla moy football ci Sénégal ñu gis leen ñu mëna dem bitim rew pour mëna fa am xaalis bu leen jariñ bokku la ki nga xamni moom espérance am dem bitim réew presque jeex na fu fii la li mu soxla ci xaalis fii la ko wékk kooku nag day utiliser soo ko joxul rek mu taxaw waaw mais léegi nii mu nekk bis boo xam ne du jii di dimanche euh, ligue professionnelle convoqué SNEIPS pour euh, remise trophée am euh, à Dakar à la mi-temps de la finale de la coupe de la ligue euh, yow nan nga affaire bobu? waaw trop trop trop parce que nous dañuy dem Thiès la ñuy parce que football Sénégal nous dina daje ci benn place ñu ne Thiès Sénégal ba mu fi raw am leen coupe Thiès parce que faut am équipe bu dem Thiès mais li ci neex Thiès taxaw taw ci kanamu Sénégal ñu jox ko parce que dañ doon jongante Sénégal équipe bu nekk da ko région bu nekk da nga indi woon équipe indi yàlla def Thiès raw équipe yi région yëpp tey ñuy sargal Thiès ci kanamu Sénégal loolu ma satisfaction mënul gën a rëy loolu parce que ñun football rek la am ñun football rek la ñuy def ci la ñuy yëngu ci la ñuy wax ci la ñuy fanaan ci la ñuy yendo kon suñ ci demee ba le Sénégalais yëpp doon xëccoo mu tegu ci suñu loxo ah, raaye boobu ñu duñ ko jox tey mais dañ ci kontaan parce que waxuma rek raaye bi mais tey dañ ñu yëkkati footballu Thiès ca kaw a kaw parce que loolu tamit ñun moo doon suñu mbébét. football nag football nag football rek la ñu am football la Thiès yëpp am représenté nañ ko gagné nañ ko neex na. Euh, comment tu vois maintenant la performance des équipes thiessoises parce que ils sont. non mais c'est c'est extraordinaire mais moi je suis pas étonné hein je suis pas étonné du tout contrairement aux autres. Parce que déjà, je connais les, les je connais les footballeurs Tchessois. J'ai toujours eu dans mes équipes beaucoup de joueurs Tchessois. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, ils, sont, incontournables et ils ont montré que quand même, y euh, est un vivier. C'est un vivier de bons footballeurs. Donc il faut que les gens continuent à les soutenir, il faut que les gens soient solidaires et c'est cette solidarité qui fait qu'aujourd'hui les clubs tiessois euh, sont au top du football, du football sénégalais. Donc euh, ça ne m'étonne pas. Et moi, je suis très content quand je te vois aujourd'hui, toi, hein, un entraîneur qui a, fait ses classes avec moi. Donc aujourd'hui, je suis, je suis très content de te revoir ici. Parce qu'aujourd'hui, même en donnant le micro à quelqu'un qui parle, tu sais de quoi il parle et tu peux quand même le rectifier et savoir si ce qu'il dit est véridique ou pas. Donc euh, je pense que c'est extraordinaire. Je suis très content, surtout pour le SNEPS, parce que SNEPS, euh, j'ai une partie du SNEPS. Voilà, parce que j'ai des amis euh, depuis les Bénéchoux avec Smatch et tout. Aujourd'hui, les joueurs comme Aribou et, mon joueur, parce que j'ai été son entraîneur à la Ali, qui, a été un excellent joueur. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné. Et je suis très content pour le football soir Très content pour mon ami Pape Sidilo aussi, qui est mon ami. On est très liés, il m'appelle chaque fois, on voyage souvent ensemble. Donc je pense que vraiment, bravo le football ce soir. Oui, dafa am leneen lu ci lu judd ci fan yi liste 23 jours 25 jours à Aliou mais yow dañ cee war a parce que aussi est-ce que ànd nga ci liste bi ak àndoon ci wala am waaw ànduma ci ndax euh, am na ñoo xam ni dama defe ni Aliou Cissé yóbbu na parce que dal colère lay sam te football man gisuma ci colère ndax gis nga équipe bu Dabo bi nekk actuellement ci coupe du monde bi am na ci xale yoo xam ni waroon nañu fëgg buntu euh, équipe nationale bi parce que tamit ñoom ñooy mujj ji suñu équipe bi te lii occasion la ñu dem vivre beneen expérience boo xam ni ah, dina tax ñoom suñu suñu demee ba mujj leng yi am nu ñu fa taxawee te tamit ñi ñuy yóbbu dañ leen a mënul ay xale lañ yoo xam ni ñu ngi ñu ngi bitim réew di football nekk ay professionnel comme ñoom ñu di leen fay yàlla def ñoom ñu gën a nekk xale. mais ñooñu dañ leen a war parce que li ma bëgg a wax mooy am na ci ñoo xam ne Aliou jël na leen ñooñu leer na leen ni dootuñu football kaan parce que pare nañu ay mag lañu football na xale moo koy def ak xale bu bëgg a wane boppam ñu xalifa yow di nga faral di wax naan xale mag muy daw gàcc ak xale buy wut ndam du ñu benn waaw du ñu benn xale yi boo leen yóbboon ñoom ndam lañu wut parce que c'est seen premier championnat et puis suñu championnat local bii ñu nekk nii Aliou mënul wax ni jour bu mu mën a jël ci équipe bi amu fi kon championnat Sénégal xanaa baaxul ñu football ati lëmm équipe yi nekk presque trente six ah yow nga mënoo cee sepp benn jour mu dugg ci équipe nationale bi mais kon ñun suñu football locale bi lan lay jariñ gis nga dafa am loo xam ne même bu fekkoon ni sax man ci li ma jàpp. football local bi amul niveau boobu Aliou Cissé pour pour pour pour nu mu tuddati a ah, ah, ñaaxoon rehaussé woon championnat bi sax waroon na ci jël benn sax ñu ni kii kat ci foot local bi la jógee loolu dina wax dina tax xale yi am jom te loolu signe de waaw góor lay doon ci suñu football bi dirigeant yi gën a fas jom joueurs yi gën a fas jom parce que am na ku fa dem gëm nañ ni ku lu dem mais bu ne nii rek nga dem Europe jël ay joueurs yoo xam ne man wóor na ma wóor yàlla gis naa ay joueurs yu ne fii yoo xam ne ñoo mën foofu yëf yi nag dem Europe si léeg-léeg chance da ciy bokk mais man gisuma ni ñenn ñi de laay wax yoruñu benn xarañte bu tax ñu bàyyi joueurs yi dem mondial bi eh, ci biti wala ñu bàyyi sax ay footballeurs locaux fii te te bañ leen a jël. ma constaté benn affaire aussi ci ci ci liste Aliou bi bon gis naa ci mu convoqué Mbaye Niang Mbaye Niang Mbaye Diagne Ismaïla euh, Sadio Mané. mais attaque bobu mom nan la ko meuna recomposer xanaa ab 4-4-2 lay jouer 4-2-4 lay jouer wala il faut mu ñu am kenn ku ci xaar. wala je ne sais pas moi parce que en tout cas ça va être un peu compliqué. dañuy xaar day yobbu ay jour pour ñu xaar moy li ma la wax. léeg-léeg day xaw melni mm, sélection complaisance da ci am parce que il faut mu am ñu xaar parce que ñoo ñëpp mu ñu bokk ci terrain. te tamit ñuy dox nga dindi len di tek fe moy li may wax boo fekke da ngay xaar lo yobul xalé yi nga xamni ñom wutaguñ ci dara mais ñu vivre expérience bi ba toog seetaan la fa xew pour bu ëllëgee suñu mujjee lenge yi bañ faa nekk gan parce que footballu Sénégal fi mu toll léegi dafa war a di dem ca kanam mais warul du dellu ginnaaw. waaw looloo indi looloo indi d'ailleurs problème mu karambooj bi ci ci ci coupe du monde bi parce que bu ñu ñëwee duñu ñu xaar. te bu ñu xaarul dañuy mën nañ perturber le groupe mën nañ fa mën nañ fa indi ay problème mais karambooj leeroon na ñëpp ni karambooj Aliou Cissé da koo yóbbu ci nii rek mais karambooj amul woon temps de jeu. toogoon na lu yàgg footballul parce que dafa gaañu Aliou Cissé da ko yóbbu parce que Kara Mbodj am na lu bari lu mu joué ci suñu ci suñu qualification alors mu yóbbu ko sàmm kóllëre mais gis nga li ko Kara Mbodj faje faye faye parce que footballkat xamul état wala leneen soo ko jëlee rek dafa bokk dafa war a bokk léegi nag football boobu moo amul sentiment dañuy jël ñi ñu war a jël jël ñi nekk ci ci forme ñu yóbbu leen parce que Aliou Cissé da xam ni équipe bu Sénégal la yor te Sénégal da ko sas war di ko fay di ko liggéeyloo mu waral di leen indil ndam di góorgóorlu pour au moins footballu Sénégal progresser mais bu fekkee ni day dem ba ci biir muy jël ay jëlu yaa ma neex ak jëlu sama xarit nga ak sama lii mais loolu amul njariñ ci ci football bi te fu ku koy defit da ngay am ñoo merloo parce que ku jël moom di nga éliminer mais yow jëlal ci dëgg rek. même yow boy juum juumal ci sa ci xamal ni da nga juum parce que nit day juum mais bul def ay ay ay affaire particulier yoy man dal amna ci yenn façon sélection yo xam man vraiment man du d' ma ci. mais Koto euh mais qu'est-ce que tu en penses sur la liste de de de de, de Aliou. Mmh, j'aime pas tellement commenter sur les listes. Non, vous non, savez, non, parce que, que vous savez euh, chaque entraîneur à ses choix. Donc aujourd'hui, il faut respecter le choix de l'entraîneur, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un bon choix. C'est un bon choix. comme tout le monde le dit, hein, parce que pratiquement presque tout le Sénégal a apprécié. Ah ouais, c'est un bon choix. Mais si tu euh, je te ça bien, tellement tu es un entraîneur très tactique. Bon, mm. parce que tu nous as valu beaucoup de satisfaction hein, au niveau national. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut le reconnaître aussi. Merci, merci. donc euh, euh, aujourd'hui, à la place d'Aliou, Bon, pour aider Aliou un peu. Qu'est-ce que tu dû faire avec le classement euh, de cette attaque-là C'est un peu difficile, hein, Kodo Je vais en parler avec Aliou. Tu sais, moi, j'aime bien parler avec des entraîneurs en coulisses. Parce que vous savez, la susceptibilité du métier. Donc, euh, moi, je pense que nous tous, on doit être solidaires, on doit pouvoir se parler. Si un entraîneur voit quelque chose, il doit pouvoir appeler son ami pour, lui, pour lui en dire. Mais non, c'est l'entraîneur qui fait son choix. Le dernier choix lui, euh, incombe. Mais je pense que euh, avec tout ce que les Sénégalais ont dit, avec tout ce que l'équipe a euh, pratiqué jusqu'à présent, je pense qu'on fera les bons choix, aussi bien sur le plan tactique que sur les hommes. Sur le Tago Waouh, équipe ci phase boo xam ne tamit moo gën a kawe parce que liñ doon rayante yëpp mooy yóbbu footballu Thiès ci football bi gën a kawe ci Sénégal yàlla def na ni dem nañ fa ñuy ñaan waa Sénégal waa Thiès yëpp ñu jàpp ci ci sur tous les plans ñaan ak xalaat ak dooleeg yëpp soxla nañ ko parce que tam ñun CNEPS de turu CNEPS lay dee mais ties la ñuy représenter te équipe bi nag dafa war a jouer les grands rôles parce que day soog a commencé xëy na dañ doon rayante pour egg ci kaw mais egg si nañ ci kaw nag dañoo war a jouer les premiers rôles et les grands rôles loolu nag affaire ties waay la parce que tamit football moom ku ne xam ne ne laaj nay moyen humain laaj nay moyen de justice laaj na moyen financier donc loolu lépp soxla nañ ko te yaakaar nañ ko ci Thiès waay